ñoom ñëpp ay xale lañu xale lu mu jàng mën ko te beneen bi ci topp tey boo xoolee cinq personnes yooyu di demande euh, di demander démission bébé xar yàlla bi ñuy étudier euh, problème am dañu dañu gis ni mas na moom def benn indiscipline ñu taxaw devant tout le monde amende ko vingt cinq mille woo ko commission discipline mu ñëw deretu mbër jàpp ko fi mu toog ñëpp toog écrit bi toog mu dindi vingt cinq mille joxe ci liñ ko amende moom bébé xaar yàlla ñun bi ñu toogee di évaluer nan lañ leen war a bàyyee ñu xalaat ni kii mas na def benn acte boo xam ni te la woon mais ci kaw njuumte bi ñuy waxtaan amande ko vingt cinq mille te fi mu toog la làmb vingt cinq mille joxe ñu ni ah kon kii comme defoon na acte boobu moom su bëggee dem dañ koy libérer sans condition hmm. Aldo benn combat la bëre sunu doom la ñu gis nii téye ko amu njariñ ndax xale bu bëgg a dem soo ko téye mentalam dootul toog te ñun dañu bëgg fu ñu nekk ñuy am victoire bu doon suñu sago ñun la ñuy nekkal ñu xool ni ah comme moom benn combat la def deux combats la def léegi nañ ko jàppale rek laaj ko vingt cinq mille du xaalis du dara mais ñi tolloog moom niveau ci écrit bi ku bëgg dem xam ne am na wareef boo xam ne waraloon na la ak écrit bi Pablo mi nga xam ni nag vraiment benn combat la def mais nekk na ku ñu naw ci xel nekk na ku ñu naw ci xalaat nekk nañu koo xam ni dafa jege mbër yi te vraiment am na volonté di ànd ak boo yi géej quatre heures du matin cinq heures du matin tey bu ñu amuloon woon entraîneur dañuy xalaat fii ak deux ans trois an quatre ans cinq ans Pablo war nañ ko mën a jël muy entraîneur mbër yi di dem di bëri ji. tey absence su technicien yi bu ñu fi nekkoon wala directeur technique am na capacité loolu ñun ñuy doxal ñu jox ko mu doxal ko ñu ni bàyyi ko du njariñ si ñun ñu ni ko nañ ko amende deux cent cinquante mille xam nga mbër bu bëri benn combat kenn xamagu la. Hmm. ñun waa Grand F ñoo la xam luñ la xamee mooy ci côté encadrement. suñ la laajee deux cent cinquante mille c'est-à-dire que bëgguñu la bàyyi moo tax ñu laaj la deux cent cinquante mille. xam nañ ni seen niveau rawantewul ci làmba kan ak kan Fourrière ak Tmax. Mhm. seen seen seen seen niveau rawantewul ci làmba mhm. ñoom ñaar vraiment ku leen xool xam ni seen taay seen tur ak yu bari xaw na méngoo ci làmba mhm. ñu gis nga ni suñ leen bëggoon téye tey mën nañ leen laaj kenn ku nekk laaj la cinq cent mille pour téye la. mais bëgg nañ leen téye ci xol mais bëgguñu leen sonal te kenn ku ci nekk dafa nekk ci dynamique boo xam ni tey su amee victoire Grand Yoff la ko amal ñu ni kon nañ leen laaj cinquante mille pour ñi fi des kenn ku nekk xam ni soo waree dem ci condition yii ñu bëgg demee ndax bu doon kenn duñ dañ lay libere sans condition mm-hmm. mais de ce fait que juróomi nit bind te yaa ngi dégg rumeur cinq wala sept personnes yu yor seen demande mm-hmm. pour bëgg libérer wu ñu ni kon nañ leen tegal condition loolu moo waral condition yi mais du wut xaalis du bañ leen bàyyi mais du bëgg leen bàyyi mais bëgg nañu nekk ak ñoom ndax suñuy doom lañu kon Pablo njariñ lu mu amal écrit bi moo waral caution bu diis boobu mais tey xalaat ngeen ne même bu joxewut caution bi te préféré rester ci écurie bi est-ce que njariñ loolu dana continuer di ko amal écurie bi du téye boppam. non du téye boppam xam nga lu tax du téye boppam mooy Pablo xale la am na xam-xam bi te da koo bëgg. weñ gi moo sew mais deretam deretu mbër la. deretam deretu Grand Yoff la. xar yàlla la juddoo màggee Grand Yoff. Grand Yoff dañuy wax Grand rek mais moo ëmb Grand Yoff. Grand li mu ëmb commune bi dafa yaatu yaatu boo xam dafa jéggi dayoo. ñu am sunuy doom ñu am lu ñu naqari mais bu ñu fi nekkee ak ñoom dañuy xam ni seen papa la ñu nekkal bu ñu nekkee ak ñoom dañuy xam ni Grand Yoff nekkal bu ñu nekkee ak ñoom dañuy xam ni ñoom Grand mbooloo la ñu nekkal ak lu leen mën a lu leen lu ñu mën a mer ndax ñun xuloowuñoo ak ñoom de ñoom lu ñu mën a mer réeroo la bu ñu réeroo nag ni xam ne dañu réeroo ak seeni i nijaay réeroo ak seeni i papa réeroo ak écrit bi réeroo ak staff bi mais réeroo bi dañ koy jël teg ko seen ginnaaw daal di jël carrière bi teg ko seen kanam am nañu yàqin wóor taseeg ñoom ba téye leen njariñ biñ ñu amaloon dinañ ñu amal njariñ bu ko ëpp c'est que yaakaar boobu am ci ñoom